alhamdulillahi ala nicmati lislaam summa salaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli kon man may imaam Zakaria Cissé dëkk fii ci mën naa wax cité Teranga mais ñu bëri dañuy wax jaxaay en face lycée bi ñoo fi jàkk bu ñuy wax masjidu tawba di nuyu ñëpp ñi nga xam ni dañuy topp Mouslih TV ci mbooleem li nga xam ne moom lañ koy indil ci ay programme di jagleel nuyoo Saïd Diallo li nga xam ne moo ko yor. saa sa la seet si woon ngir euh, waxtaan ak yow ci tollu tollu àdduna ak tollu tollu Sénégal par rapport ak euh, feebar bii di coronavirus ci sa jàngat nan nga ñu mën a leeralee sa position ci mbir moomu. lu jiitu Saïd. mooy borom bi subhanahu wa ta'ala moo moom àdduna moo moom ñi dëkkee àdduna mën nga wax ni kon moo moom kër gi moom moom ñi dëkkee kër gi moom mooy dogal ci ay jaamam lu ko soob mais moom moo tëral àdduna ak nit ki ni mu bëggee pour mu nekkee ko ci àdduna ak ni mu ciy dunde loolu moo tax bàyyi ko ak boppam mu yónni ay yonent wàccee ay téere ba mu mujjee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran mujjee ci téere yi pour ñu leeralal nit ki kan mooy boroomam naka la koy jaamoo lan mooy relation am digganteem ak boroomam leeralal nit ki kan mooy moom ci boppam en tant que nit lan mooy relation bi mu war a am ak boppam mais leeral nit ki moroomam lan moo ko boole ak moom mais leeral nit ki aussi li nga xamante ne moom mooy environnement bi muy dundu ni ci ni ci war a nekkee lépp mu tëlal ko limité ko jox ko ay frontières ay daytal donc kon li jiitu mooy nit bu yamee fi mu war a yam def li mu war a def nekke ni mu war a nekke dunde ni mu war a dunde yeneen mbindeef yi nga xam ni yàlla da leen bind pour leneen duñu am benn jote bu ñuy jotee ak moom mais léeg-léeg nit mooy wàcce yoon wañ ko tegoon dunde ni wuuteeg ni ko boroom sante mu dunde nekki nekkin wu wuuteeg ba ko yonentaam sallallahu alayhi wa sallam pour mu nekke noonu su ko defee loolu jur ay jafe-jafe jur ay tolof-tolof parce que nit yamul fu mu war a yam léegi da ngay jàng ci alxuraan lu bëri wa tilka xududullahi fala taataduha wa tilka xududullahi fala taqrabuha lii day ay deytalu yàlla la bu leen ko bu leen ko jéggi yam leen ci lii day ay deytalu yàlla la waxuma laa jéggi sax mais bu leen ko jege kon li xew ci coronavirus comme ni ñu ko xamee mooy doomu aadama moo yamul fi mu war a yam lekk lu mu warut lekk virus boobu daal dee toxu ñëw ci moom ak ni muy euh, soppeekoo ak ni mu gaaw a tasaaroo ak li mu nekkee loo xam ne lu day waar la ëlëm àdduna tey ba amaguñu loo xam ne moom moo koy moom moom moo koy faj kon premier chose bi ci njàngat mooy doom aadama moo wàcc yoon wi nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa taala jaarloo mu jur lii parce que loolu toujours day am ay conséquences yoo xam ne moom lay indi loolu moo taxoon yàlla wax zahara al fasadu fi l barri wal bahri bima kasabat aydi naas lu yuziqahum ba'da allazi amilu laallahum yarjiun kon li yàqu tey yàlla nee na dama koy damay jox nit ñi wala conséquences yi dañ koy dañ koy dund naa leen mosal lenn loo xam ni jalgati la fi ñu waroon yem yemuñ foo li ñu waroon def defuñ ko def leneen lu dul loolu pour ñoom ñu mën a dellu siwaat ci man kon coronavirus ni mu yaaxalee àdduna ni mu lëmbee àdduna ba tey daanaka amul réew boo xam ne dugg ci ci àdduna wala bu amee yu néew la yoo xam ne mën nañ ko wàññi ak baaraam kon loolu euh, jàngat bu njëkk bi mooy wàcce yoonu borom bi conséquence la ci tey nag fi ñu ci toll ci àdduna mooy ñëpp jaaxle nañu réew yëpp comme niñ ko gisee ñu ngi euh, def ay góorgóorlu ay pexe euh, ñenn ñi balaa mu fay dugg nu ñuy def ba du fa dugg mais loolu teewul dugg na fa après bi mu fa duggee yan mesure nañuy jël pour gën ko mën a limiter tey am na ñoo xam ne àgg nañu mooy bu kenn génnati tey am na ñoo xam ne àgg nañu ci nu ñu gën a mën a néewalee dajay mbooloo yi ñu néewalee ko noonu tey àgg nañu foo xamante ne débat beeg coow li ñu ngi doon wax léeg-léeg ñu jël ko ci loo xamante ne dañ koy toxal jëlee ko ci réew yóbbu ko ci réew wala ku ko am wàlla ko keneen mais tey ñu ngi wax ne am na ñoo xam ne am nañ ko du si ñaari façon yooyu nañu ko amee mais daanaka ci jaww ji nañ ko jëlee ndax ne nañ virus bi bu fekkee ne dafa des jaww ji bu mën a toog trois heures de temps te du te du dee wala doog a doog a dee kon tey àdduna fi ñu toll coow léeg ëlëm na nit ñi ñu ngi jaaxle mais yàlla moo bind virus yàlla moo bind nit yàlla moo yor ñaar yooyu yëpp kon li nga xamante ne moom mooy njàngaley kër docteur si li ñuy jàng loolu wax ci matukaay yi ñu jël ko bàyyi ci xel mais njàngaley lislaam tamit gannaaw jël matukaay yooyu dellu ci borom bi tuub tàllal ko ay loxo rëccu mbur mu delloo loolu ak balaa beeg jafe-jafe yeeg xat-xat yi ndax moom miy feebaral moom rek mooy ki nga xam ni dafay dafay dafay wéral. mooy ne yàlla moo bëgg nit ñi delluwaat gannaaw mm. injustice daal di fi jóge mandute daal di ñëw mm. nit ñi respecté li leen wër respecté li ñuy lekk mm. respecté seen diggante ak seen borom muy wàllu ibaadaat yi mm-hmm. est-ce que loolu euh, du wet ñi nga xam ne dañu wax ne occidentaux yi ñooy créé virus yi ngir lan wàllu économie moom la ñuy lijjanti moo tax ñu créé bi ñu mel bon yaakaar naa virus bi euh, comme ni ñu koy waxee lu nekkoon la dund ndax ñoom ñoo jéem denc après tas ko ci réew yi ak lu ci mën a am duma ci duma ci dogu duma ci taxaw duma dàqal loolu duma duma ko saxal ndax amul firnde yu ma koy yu ma koy dàqee mais amul firnde yu ma koy yu ma koy saxale mais euh, ñoom même bu fekkee ne def nañu loolu mënuñoo def lu soobul borom bi comme ni ko yàlla waxee wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin amul lu leen di soob yéen doomu aadama yi pour loolu nekk ci seen kàttanu bopp ci seen pexe bopp ci seen mën-mënu bopp yéen rek ngeen bëgg dara loolu am te fekk soobul borom bi pour loolu am kon kàttanam coobareem man-manam si la yooyu di amee moom borom bi subhanahu wa taala moo tax jullit bi même bu fekkente ne jàpp na loolu ndax xabaar yi ko dikkal doy na ko wér na ci moom dute dana delloo mbir yi ci borom bi ndax borom bi moom mooy feebaral mooy wéral moo bind ñaar yu safaano pour ñuy mën a ràññaatle mbir yi wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tazakkarun lu nekk ñaar laa ci bind ndax ngeen mën a waaru góor jigéen guddi ba bëccëg lu baax ak lu bon lu rafet ak lu ñaaw mais feebar ak wér ak lay sabat feebar ba ak lay sabab wér ba kon même loolu bu amee tamit toujours ñun jullit dañuy delloo mbir mi borom bi ndax amul luy mën a nekk lu dul ni daf ko soob amul lu mën a nekk lu dul day tegu ci kàttanam amul lu mën a nekk lu dul mu nekk loo xam ne day tegu ci xam-xamu borom bi ndax amul lu koy échappé ci nguuram moom borom bi subhanahu wa taala. jërëjëf léegi question bi ma lay laajaat mooy euh, gis nañ ni fan yi euh, tere nañu jullit yi wala sénégalais yi ñuy dajaloo te sénégalais yi jullit yi ñu ngi ci te barab yi ñuy dajaloo bokk na ci jumaa yi acte bi nga xam ne yenn ci ay kuréel yi fii ci Sénégal wax nañ ne nanu tëj jàkk yi nan nga gisee euh, dogal boobu ak nan nga ko mën a jàngatee. jërëjëf sant it xam nga. diine lislaam diine la boo xam ne dafa matale dafa ëmb dundu nit ki yëpp ak dundinam ak nekkinam amul dara loo xam ne moom la bàyyi ma farratna fi kitaabi min shay amul lenn loo xam ne dañ ko sàggane ci téere bi la wa kulla shay'in fassalnahu tafsila lépp leeral nañ ko détaillé ko ci li nga xam ne moo nekk téere bi ci façon leeral yi nga xam ni moom lañ leerale lu ñu tuddee anwaa'u dalaalaat bañ a dugg loolu torop ci usul façon xeetu tegtal yi ak nan nañu mën a jëlee lii day junju lii lii day wane lii lii day leeral lii ku ko xam-xam na ko ku ko xamul xamu ko mais alquran amul dara loo xam ne moom la moom la bàyyi kon euh, normalement téere bu mel nii jullit bu ko amee war na di anticiper yu baree bari balaa sax ñuy àgg ci dogal yi di xool loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy xalaat ak gis-gis bi nga xamante ne moom la jullit war a am parce que alxuraan toujours daf koy xiirtal ak di ko ñaax ci yu mel noonu tey bu ñu demee ba àgg ci jamono bi fii ci Sénégal que virus bi dugg na non seulement dugg na mu ngi tas tasaar boo xam ne bu gaaw la lool sax tey àgg na foo xam ne ñu ngi wax ni daje yu mag yi dañ ko war a arrêté loolu ci wàllu gisin ci en tant que ku jàng diine balaa état doon àgg foofu ñooñu waroon nañoo mën a xalaat ni muy tasaaroo ci àdduna balaa mu fi yegg si li muy rey ci ay nit normalement tey bu ñëwoon fii wala bu muy balaa mu yegg si foofu waroon nañu mën a génnee fatwa bi wax li su accès fii préparer nit ñi pour nit ñi mën a bàyyi xel ca loola. mais booy xool en général décision yi day topp décision politique ñun du ñu jiitu politique yi mais politiciens yi ñoo ñooy orienté bu njëkk ba borom xam-xamu ñi yore nguur ci ñoom nañ doon dem di jël seen xalaat pour wéyal li nga xam ni moom la ñu bëgg a wéyal mais tey boroom xam mu diine yi daanaka ñooy dem ci nguur pour mu jox leen xalaat pour ñu mën a wéyal li nga xam ni moom la bëgg ñu wéyal ko li ma bëgg wax mooy tey décision yu bari yoo xam ne ñëw na ci boroom xam-xam yi dafa fekk mu nekk loo xam ne day topp li nguur toll ne lii jàpp nañ ni dafa war a ne léegi nag ñuy jéem a wutal loolu mu jàpp dafa war a ne ñu koy jéem a wutal solution ci diini te warul woon demee noonu loolu benn la ñaareel bi mooy lu mel ni bu amee lislaam diine bu am ay mbir yu sax la mais diine bu am ay mbir yoo xam ne dana soppeeku ni jamono di soppeekoo ni palaas yi di soppeekoo ni situation yi di soppeekoo ni circonstances yi di soppeekoo su ko defee yooyu nga xamante ne palaas jamono mbir yi day soppeeku ñu xool par rapport ak texte yooyu naka nañ koy wàccee ci contexte boobu pour mu mën a adapté wu ak moom pour mu mën a méngool ak moom la ñu tuddee a assawaabit wal mutaxayiraat mutaxayiraat ci wàllu fatwa parce que xew-xew yi dañoo limité wu astafirlah euh, texte yi dañoo limité wu mais xew-xew yi limité wuñu léegi nag li limité wul il faut ñu koy delloo ci li nga xam ne dafa limité wu léegi nag lii nga xamante ne mooy xew-xew bii nii li waroon jiitu mooy du fatwa benn nit moo ci nekk